On avance ensemble dans la magie des eSport TV, l'actualité en continu actualité nous faisons voir waxtaanee xam donc Andy Diouf similitude yi mu am maanaam nuróowaale gi mu am dit jeu kii di Iliman Alassane également ci Sadio Kaiser magnifique Mané acte li nga entraînement yu bees yu waa Bayern Munich mais laata boobu Asamoah Gyan bi nga xam ne moom nag dafa arrêté carrière internationale am moom nee na jamono ji daal ni mu gisee ne noonu la waa Black Star yi di doxee nee na daal dafa gis ne gars yi daal ñoom fi mu ne nii seen nekkuñu ay euh, voilà nekkuñu équipe quoi gars ñëw si équipe bi mel ñoom dañoo wàcc seen bopp gars nag beneen nouvelle bi leen jox parce que nee naa fi exclusivité yi la leen jox FIFA instant yi dafa nekk di testé euh, li nga xam ne mooy hors léegi dañoo bëgg hors bi tant FIFA di xool ndax da koy dugal wala du ko dugal ah non ko ma ngoog loolu jàppaleen ko ci wàllum règle hors-jeu yi ki nga xam ne nag également mooy Sadio Kaiser fi maa ne gis nga ko fi ah de jantal boy ah star boy ah, ah, lii mooy tenue entraînement yu Bayern de Munich yi bokk na ci ah ki nga xam ne nag mooy donc Amin Harit moom nag officiellement nekk na joueur de Marseille parce que Marseille dafa lever li nga donc option d'achat bi nekkoon ci donc Amine Harit maintenant joueur le bu Marseille à à part entière qui hein. ki nga également Lucas Hernandez moom diggante jeudi vendredi la def visite médicale am du côté du Paris Saint-Germain li ci des rek mooy ñu daal di yëgal ne fësal jour joueur Paris Saint-Germain la ndax de faire la di et Bayern aussi annoncé na jugeem foofu Bayern mi bi nga actuellement mi ngi insisté ci Harry Kane njëkk nañ def proposition wax naa leen ko hein, proposition bu 70 millions ni hein, ñii nga 60 70 millions à Tottenham bañ ko kii nag di Daniel Levy nee na moom du jaay ki nga xam ne mooy donc Harry Kane waxoon na ko bu yàgg mais nag ne nii Barça eh, ñii di waa Bayern ñu préparé offre bu rëy rëy waa Real Madrid également ba léegi fàtte wuñ ki nga xam mooy donc Alphonso Davies ñi ngi insisté di xool situation am Alphonso Davies nag moom bëggul te dem clash ak waa Bayern parce que moom nee na jamono ji daal euh, il se sent bien du côté du Bayern bi et que contrat moom jeexagul noonu tax fi mu ne nii daal bëggul dugg si yooyu ki nga xam mooy donc Arda Güler wax naa leen ko man dama leen jox détail incha allah rabi nee na Arda Güler ñii di waa Barça déco dem na ba gis ko rencontré li nga xam mooy donc entourage am euh, waxtaan président benn Fenerbahçe aussi dem expliquer leen projet Barça parce que moom Barça dafa ñëw ne ko dañ koy jënd ba pare bàyyi ko ci yéen benn at moom mi ngi noonu waa Real Madrid nag tey jii euh, donc semaine bi le waa Roberto Carlos xam nga moom moom ci kii la bokk ñii di ambassadeur yu waa Real Madrid dafa wara dem gis tamit Arda Güler mais pour l'instant, gum instant yi d'al. Barça mo gëna japp jàpp fu mais attention Real na Real amna capacité convaincre li nga xam moy donc joueur ki nga xam nak moy donc Wings ah, donc jugee na du côté de Tottenham dem signé du côté de Leicester pour trois ans donc moom ci deuxième division championship la fara wara football ki nga xam nak moy donc moy Caicedo gars yi ne nañ di Brighton euh, li di 115 millions lañuy laaj pour daal di jaay Moïse Caicedo wa Chelsea aussi ils mais nag prix boobu est-ce que Chelsea defaat ci joueur loolu nag moom la gars indi jiixi jaax ki xam ne mooy Leao officiellement gars yi déwén incha rabi numéro 10 lay di sol le portugais donc euh, changer le numéro 17 am mi numéro 10 bi daal lay di on va parler de Andy Diouf y a Andy Diouf signé du côté de Lens hein? Andy Diouf nekk joueur boo xam gars yi hein. donc il a la possibilité papaam sénégalais là a na possibilité jouer pour Sénégal a na possibilité pour jouer pour France moom nak boy bi hein, li nga xam ne donc phase préformation mi ngi ko défé ci Paris Saint-Germain bon mu 12 ans la fa daal di après mo daal di dem Rennes Rennes lañ ko la nek ba Rennes daal di koy àll Bâle après Bâle levé option d'achat bi Bal da mon koy de mom nak dafa am similitude ak Idriss ak kii di Iliman Ndiaye yenn similitude la am mooy que ne mom comme Iliman il est techniquement très bon c'est un joueur de xamné il est bon. mais aussi il est excellent au dribble ban similitude également la am ki nga xam moy Pape Alassane Gueye moy que c'est un gaucher comme Pape Alassane Gueye il a aussi une tire super puissante ki nga xamné ne moy donc donc dit Diouf et c'est un milieu de terrain Mom tamit tey mën na jouer milieu de terrain nous na jouer attaquant nous na jouer excentré il est polyvalent comme est Ndiaye et aussi c'est un joueur boo xam il est porté vers le jeu vers l'avant c'est un joueur boo xam ne dafa ñeme yéeg c'est un joueur boo xam pressing contre pressing da ko c'est un milieu aussi qui peut jouer box to box et c'est un joueur boo xam comme je l'ai dit ci ngeen ko gis ci imat bi pour un peu wan leen par rapport à ce ni nga xam euh, ni mu jouer c'est un joueur boo xam comme je l'ai dit au milieu de terrain création d'occasion il crée énormément d'occasion hein. c'est un joueur aussi boo xam il est dans les surfaces de pénétration il est présent ah, il aime pénétrer il dafa bëgg di dugg ci li nga xam moy donc surface bi mais si un jour bo xamné aussi li nga xam mooy donc lu tàkk glissé yeeg li nga xam moy li nga xam moy il prend moins de carton li nga xam nak moy défaut mo war ko gëna travailler moy devant les buts agilité devant les buts mais waa ji mën na toll ci hors de la surface de réparation daal di dóor tir bu surpuissant dugal na ci nga xam moy donc conférence ligue bi ren nak il va jouer avec ni di wa lance Ligue des Champions c'est une occasion aussi pour xol comme aussi jox ko opportunité